وصلى الله على النبي المصطفى المجاهد الاكبر محرر البشريه وعلى اله واصحابه الذين جاهدوا من بعده وجالدوا واجتهدوا ورضي الله عن ائمه الاسلام ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين بقي في دجي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمنا جن بالما يبارك ما يخل دخل ما صل لما نكتي كامبانج إلكترال rare te comme homme politique yi àbb nañ ñu sunu grand mbubb yi àbb ñu sunu koppat yi àbb ñu sunu kaala yi ba àbb kaan yi hmm? àbb sunu aaya àbb sunu xadis kon ma àbb leen seen pantalon ak seen veste ak seen kap waaw wa tilka al ayaamu nudaawiluha bayna naas loo ci man mel ni nag dama leen di tooñ noonu rek baarakallahu ah ñu nuyu ñi fi teew wax dëgg yàlla sunu way juru bopp rëy ci ñun lool mu di Cerno Habib Taal mu ngi toog ànd ak ñi mu àndal فتبارك الله هو يجر تير لا سي مان باي ما لما لي نوركو نيوركو كون نك بو في نيوي ني نيوكو تا بو نيو كو نيو مل ناني فامي شيخ الحاج عمر الفوتي ييب نيو نانيو لين نوي تم ñi nga xamni ci walu fa tabarakallahu ñoom lañu fi am kii di bi nekk Tiwaawoon di Cheikh El Hadj Abdul Aziz Dabba kële di nekk ca tuuba di sëriñ Cheikh Saleh ak këru diine yi fi des yépp seeni njaboot yépp ñu ngi fi ñu ngi leen di nuyu di leen masawu coono mu mel ni kilifa yi ñu bokk ci wàllu kër gi it fa tabarakallahu la ko commencé ci sëriñ Moustapha sëriñ Abdul Aziz si doomam yónnee na fi délégation bu am solo ñu ngi koy gërëm di ko sant sëriñ Mansour fa tabarakallahu may doomam maa ko fi teewal bu dee sëriñ Abdul Aziz ak Cheikh Ahmed ma mu mbokkal ñoo féete woo ñaan nga kon nag lépp rafet na ñu ngi nuyu muqaddam yi ñu ngi nuyu président wu dayira yi ñu ngi nuyu itam président wu fédération yi yépp nag teg ko ci bu dairatul kiram nuyu itam sunu mbokku association islamique yi nga xam ne yépp teew nañu fi ah rawati na nag sunu cheikh yi bopp yi di waa ibadur rahman waa ibadur rahman nag alladina yamshuna ala al ardi hawanan ida xatabahum aljahiluuna qaalu salaama waaw ñu ngi leen di nuyu kon nag di leen gërëm ci seen teewaay di gërëm itam seen jeunes yi nga xam ni mobilisé wu nañu di nuyu itam waa solidarité islamique bu El Hadji Badra Seck wa ñoom ñëpp teew nañu fi waaw euh, association pour la sauvegarde du Coran ñoom itam sunu mbokk Ousmane Bey moo leen teewal ca gannaaw dama toog rekk jot benn lettre ma ubbi ko fekk ca benn diplôme ñoom waa association bi nga ne ma ñoo la yónnee diplôme bi ndax ñooy ñooy association pour la sauvegarde du Coran te li ngay def ci alquran muy jariñ ndaw ñi amul kenn ku tollook yow ku koy def kon nag ñu jox la diplôme bi waaw nag ma seedeel leen ko gërëm leen sant leen yal na yàlla barkeelal leen ah fa tabarakallahu ambassade d'Iran ñoom itam yónnee nañu fi délégation suñu mbokk shérif moo ñëw euh, teewal leen fi kon nag ñoom it ñu gërëm leen sant leen ndax ñoom itam euh, àllarba lañ doon def sax seen anniversaire yónnee woon nañu fa itam fa tabarakallahu suñuy collaborateur lañ mu mel ni itam sunu mbokk parti politique yi teew nañu fi waaw AJPADS te mooy waa yaakaar naa jëf dafa mel ni sunu mbokk ma Mademba Njaay mu ngi leen fi teewal PLP bu sunu bay bële Babacar Niang sunu mbokk Abdou Fall mu ngi ko fi teewal CDP garab gi bu sunu mbokk yi Bader Guédé juuf mu ngi ko fi teewal PDS Parti démocratique sénégalaise sunu mbokk Boubacar Sall ñëw na fi ànd ak délégation yónnee mayit beneen carte de visite wax ca la mu ca wax yépp tabarkal la mu mel ni nag ñoom ñooñu fi yónnee ñu ngi leen di sant koo yëg mu yëg la koo yëgul rek du la yëg waaw mu mel ni nag suñu section étrangère yi itam waa États-Unis teew nañu fi waa Espagne teew nañu fi waa itali teew nañu fi waa France itam Angoulême ak Bordeaux ñu ngi fi teew waa Gabon teew nañu waa Gambie teew nañu waa Côte d'Ivoire teew nañu kon nag ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant te instruction yi ñu leen di joxit bu ñu demee nañ ko appliquer ndax ni ñuy wotee Sénégal la ñuy wotee ci àll bi ok Maodo ok dañu wax suñu bayu bopp Maodo si bu El Hadj Abdoul Aziz si yónnee na fi délégation ni bu mënoon mooy ñëw waaye góor gi dafa am fu mu ko yónni kon nag fa tabarakallahu mu ngi ànd ak ñun ci jataay bi Yon nefi delegasyon bo. Fokokon yon koi girem dikosant. Girem le responsable yip. Girem koordinasyon yip. Girem seksyon yip. Girem sou nou koleji peri ak meri. Girem item sou komisyon yip ak selul yip. Fote barak Allah ou. Defan nag bonopi. Te son ngen. Nag bitan gena. Woy temi yal lo warmelen kodjaral. Woy. fan yii yëpp yéen a ngi gis fukki fan ak juróom ay mag yu nga xam ni bàyyi nañu seen kër bàyyi lépp di sabaru di mbiib te xamuñu ba xam ndax aljanna nga ci wala diit kon bu leen ko jaralee ñoom yéen yi nga xam ni seen bos wóor na leen ni aljanna ngeen ci mu jaral leen lu ko waaw mu mel ni nag dañu am waxtaan tey maa ko tooñe noonu rek ni campagne électorale ça ne m'intéresse pas parce que bu ma intéressé woon rek ma commencé ko fu ñëpp dugg ma dugg fa te baat bu ñu fa am mën naa am bu ko fa ëpp waaye dama xam ne nag jarul may wër waaw bu baat bi duggee rek baax na waaw waaye nag li ma intéressé mooy nit ku sa responsabilité yaatu ba mat àdduna boo yeme ci rew yak man sama responsabilité ëpp na Sénégal ëpp na Sénégal billahi alladhi la ilaha illa huwa kon nak buma len di wax dama len di wax ci alam bi ñu bok kon nak tem bi tay moy al islam wal alam wa nahnu l'islam, le monde et nous. Mais nous, nous en tant qu'Africains, mais aussi nous en tant que Sénégalais. ak certes nous ne sommes pas encore à l'heure du bilan mais en ce 20e siècle notre planète n'a connu que des bouleversements et des affrontements assez tragiques. De 1914 à 1918, de 1939 à 1945, de Hiroshima à Nagasaki, de Genbenfu à Varsovie, de Yalta à Bandung, de Stockholm à Lanzus, du canal de Suez à Jérusalem, de Camp David à Madrid, de Malte à la tempête du désert. De riposte en riposte, chacun se demandait si la guerre froide n'allait pas d'un moment à l'autre dégénérer en un troisième conflit nucléaire. Que dire aussi des autres foyers de tension La France et l'Algérie, la marche verte au Maroc, l'Indochine et le Vietnam, la Syrie et le Liban la Palestine et Israël, les bombardements de Tripoli, l'Iran et l'Irak, la Somalie, la Bosnie-Herzégovine et j'en passe. C'est un bilan lourd en pertes humaines. Et les affrontements politico-ethniques ou confessionnels n'ont fait que payer la facture de la guerre à des centaines de millions d'êtres humains, mais pour le compte de qui Pour le compte de qui الفلسطيني والجزائري والإيراني والعراقي والصومالي والبوسني فاسأل فاسأل فاسأل الجميع إذا سئلوا بأي ذنب قتلوا لا يدرون أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا kon ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم thumma lam yatubu عذاب جهنم ولهم jahannam الحريق lahum adabu alxariq xaqan hunaka alyawm almawcud wa xaqan pour certains l'après-guerre ne l'a pas été à cause de la guerre froide que se sont livrées les deux superpuissances, les États-Unis d'Amérique et l'Union soviétique. Cela s'est traduit en des conflits armés, des luttes de libération nationale et enfin en des combats qui opposent tous les colonisés d'hier. De notre côté, les bouleversements techniques, les bouleversements technologiques souligne le contraste entre la croissance ultra rapide des pays développés et le retard poignant du tiers-monde qui découvre chaque jour sa misère et sa pauvreté. Enfin, le 26 juin 1945, c'est la création de l'Organisation des Nations Unies, ONU, et ses différentes composantes le Conseil de sécurité, le Conseil des tutelles, le Conseil économique et social, la Cour internationale de justice et d'autres institutions spécialisées comme l'OIT, Organisation internationale du travail en 1944, la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture en 1945, l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture en 1946, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé en 1948, la BIRD, Banque internationale pour la construction et le développement en 1945, qui se trouve aujourd'hui la Banque mondiale, le FMI, le Fonds monétaire international en 1945, les GATT, Organisation internationale du commerce en 1947, l'UIT, Union internationale des télécommunications en 1950, la FFI, Société financière internationale en 1955, l'OACI, Organisation de l'action civile internationale en 1957, l'OMCI, Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime en 1958, l'AID, Association internationale pour le développement, en 1960, malgré, malgré toutes ces institutions internationales et organes des Nations Unies, l'ONU n'a sûrement pas pu répondre à tous les espoirs des peuples. Quelqu'un l'a si bien dit. L'illusion, souvent, a engendré la déception. C'est pour cela d'ailleurs que la crise économique a succédé à la croissance réputée exceptionnelle. Et l'Europe a accusé un retard par rapport aux États-Unis et au Japon. En même temps, plusieurs pays d'Asie du Sud-Est passaient en quelques années du club des pauvres à celui des riches. L'alternance, elle, a joué à plein dans la plupart des États démocratiques. La liberté finalement s'est montrée plus solide qu'on ne le croyait. Une vaste remise en cause intellectuelle, culturelle, morale, économique, politique, sociale, dont mai 68 a éclairé le monde en quelques semaines. D'autres nous disent qu'il y a là un renversement des valeurs. Valeurs qui ont fait durer l'humanité et les valeurs qui l'ont fait progresser. Lors d'un colloque organisé en 1968 par l'UNESCO, un des conférenciers a bien voulu nous livrer cette précision, je le cite. La science à ce jour, la science à ce jour nous a procuré, certes, une masse infinie de connaissances, mais sans nous dire comment les utiliser. En vérité, elle a joué les apprentis sorciers. Elle a déchaîné ce génie dangereux qui a pour nom technologie lequel menace les idées fondamentales que l'homme se fait de son existence. Le malaise, la crise et parfois même la révolte gagnent des groupes importants de la société universitaire, médecins, travailleurs, enseignants et d'autres. Il suffit donc de poser la question pour constater que les valeurs qui font progresser l'humanité ne sont pas les mêmes que celles qui la font durer. Car tout changement indéfini entraîne la destruction, puisqu'il dépasse le développement, l'achèvement. Les valeurs religieuses et spirituelles, si naïves qu'elles puissent nous paraître à nous, les scientifiques d'aujourd'hui ont prouvé leur aptitude, à soutenir la durée de l'humanité. À l'inverse, nous voyons ce qu'apportent à court terme les valeurs scientifiques, mais à long terme. Car promouvoir un brillant court terme, c'est bien, mais pour aller où pour aller où La problématique actuelle du monde réside dans cette bouleversante question. Et malgré l'euphorie excessive, le capitalisme américain de John Kennedy à George Bush souffre d'une éclipse. Le communisme, tant célébré de Lénine à Staline, de Khrushchev à Brezhnev, ce communisme, dis-je, s'est effondré sous le regard dessus de Gorbatchev et de Yeltsin. L'Allemagne et le Japon ont été ébranlés dans leur stratégie industrielle. En Europe de l'Ouest, la crise de l'emploi s'est déroulée sur fond de crise monétaire. L'Afrique, morcelée et déchirée, ne s'est toujours pas conciliée culture et développement un monde donc sans repère, un monde obscur et divisé, un monde où les crises se croisent, rendant le présent inquiétant et l'avenir incertain. Un monde secoué économiquement et désaccordé politiquement. Partout, on parle de panne confirmée, de, monde, de monnaie ébranlée de chômage aggravé, d'activité désynchronisée. Dans tous les domaines, il y a ce constat. Industriel, ah, industrie, pessimisme. Agriculture, on parle d'agitation. Emploi, on parle de retour en arrière. Commerce, on parle d'excédent. Syndicalisme, on parle de panne de projet. Transport, on parle de pertes humaines. Logement, on parle de monopole. Tourisme, on parle de, dégradation des mœurs. Communication, on parle d'agression. Et enfin, environnement, on parle de déchets toxiques. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون تكت وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا Face à cette situation nag de crise générale ou généralisée may jooy face à cette situation de crise générale ou généraliser, tous les regards se tournent vers la religion. Sentiment d'espoir pour les uns, ou parfois sentiment de crainte pour les autres. À y réfléchir, nous nous trouvons face à une remise en cause de tous les systèmes qui, dans leur diversité, et malgré leur diversité, n'a pas pu constituer un ensemble cohérent de développement. Raison pour laquelle, depuis une décennie, les jeunes consacrent leurs réflexions à la religion. Car pour eux, la politique, au sens noble du terme, ne semble guère faire recette pour assurer leur avenir. Puisque cet avenir, c'est à la jeunesse de l'assumer. Et si la politique paraît nécessaire pour les adultes, elle est souvent perçue pour les jeunes comme un mal nécessaire. Et si encore elle n'est autre chose que l'affaire des hommes au pouvoir, adieu l'espoir des peuples. En Russie, un général a regardé Staline un jour en murmurant cette phrase Triomphe d'un homme, tragédie d'un peuple. Dans ce contexte, quel sera le rôle de l'islam pour débrasser le monde de sa, de sa misère millénaire L'islam habite notre avenir, disait, disait Roger Gaudi. Seulement la question qui mérite d'être posée par chaque musulman honnête est celle-ci. Qu'est-ce que l'islam a de si dangereux pour avoir un si grand nombre de détracteurs Mahdi Bazargan disait aux hommes de l'opposition iranienne qu'ils voudraient oh, Mahdi Bazargan disait aux hommes de l'opposition iranienne qui voulaient évacuer l'islam de la scène politique, il disait ceci, la démocratisation ne signifie pas la fin de la République islamique. Car l'islam, même pour les non-musulmans, a toujours joué un rôle tampon pour réduire les excès. Parce que les dirigeants politiques, même s'ils ont des acteurs, ils ne peuvent pas assurer l'essentiel de la gestion des États. Pour l'islam donc, il faut que chacun exprime ses idées. Idées qui jaillissent nombreuses au milieu de toutes les occupations. Toutefois, ces idées réunies dans un vrai laboratoire social serait ordonné, classé, synthétisé et il en sortirait un art de première nécessité dont il n'existe chez nous pas même l'embrouillon. Il s'agit du facteur humain. Enfin, enfin, et pour conclure, je veux saluer la de Sa Majesté Hassan II. Lors d'un interview accordé à l'hebdomadaire Le Point, la question est voici. Êtes-vous optimiste sur la façon dont l'islam peut aborder la modernité Hassan a répondu, l'islam n'est pas contre la modernité. Mais si vous considérez que la modernité ce sont les femmes habillées en robe de plastique transparent ou la, possibilité, pour les homosexuels de se marier, alors, dans ce cas, oui, l'islam est complètement moyen jeu. Fin de citation. Je vous remercie de votre attention. Ah, waaye ngeen baal ma ko tuuti rek ah euh, def nañu discours bi nag tiire nañ ko ak index yi mu àndal ko ko ci soxla rek mën nga ko ñaan ñuy yore organisation bi danañ la ko toppatool donte sax nag amalu leen njariñ waaye ba tey ngeen garder ko rek ni souvenir la ah ok waaw ni euh, taalibe yowoon ca daara ja ñoo doon jàngantu ñoo ko ñoo ko làkk foofu ñu dellu si ci waxtaan wi nag ci wolof ngeen may ma nag déglu piir waaw lii lii moo jàddu moo tax may wax ni homme politique yi am na ci ñoo xam ne war nañ ñoo yónnee seen militants yi ñu yaraat leen ndax kilifa gu war a wax lu defar réew kenn talu laa déglu ndax mbii bëgg sabar boo compté ca ñooña doo dem moo tax nañu yónnee si mustarshidin militant yi ñu yaraat leen la ndax benn la point ñetteel bi mooy àdduna bi ñi fi falu lu leen fal ak fu ñu jëm ak ñun ñeenteelu point bi moo di Afrique ci biir ñaaru yooyu démbam naqari teyam jaxasoo te ëllëgam wóoragul lu mu war a def juróomeelu point bi nag mooy conclusion bi mooy les élections au Sénégal maanaa tam bi yépp ba mu jeex Moussa Ngom daf ko résumé lay ndeysaan Moussa Ngom boobu di def rasta bi tey def nii ndeysaan waaw ah moo résumé thème bi danga daan tëdd ba guddi jot buur tëggum ndëndëm ni jóg leen fii ku fi fanaan dib jaam waxu ko xëy na feneen la ko jële sax waaye boobu gën a siiw ak rasta ba def ni bët ya ndeysaan lay ndeysaan danga daan tëdd ba guddi jot buur tëggum ndëndam ni jóg leen fii ku fi fanaan dib jaam tey nag du buur a tëgg ay buur a tëgg ba ca des itam mu ni baax bari bañ bon bari bañ kon baax te bari bañ moo gën du dëgg mu ni mbaax lislaam a ko woote kon ku bon génn nga ca nee na mbon iblis a ko kon ku baax génn nga ca la ilaha illallah ko koy xizbullah ala inna xizballahi hum almuflixun ak xizbu cheytaan ala inna xizba cheytaani hum alxaasiruun ah kon nag baax lislaam a ko woote kon ku bon rek génn nga ca iblis a ko woote kon ku baax génn nga ca ah nee na góor gu baax nee na mbaax ga mu am yaay ko liggéey ca kër baayam ba tax du torox du dëgg góor gi baax walaay ndeysaan yaayam a ko liggéey ca kër baayam moo tax du torox kon bañ bañ bëgg du dëgg kon Afrique baax gi mu baax ba tey arab yi di ko xëccoo tubaab yi di ko xëccoo ba mu jaral leen ñu di ñu baax gi ñu baax seen mag ñu baax ñi fii ñoo ko liggéeyoon ba tax duñu torox kon nag bañ bañ bëgg mu mel ni nag kon ci résumé boobu rekk ñu yëg ni yi xew yépp ci ñaar la jóge mooy bëre bi am diggante mbaax ak mbon ان الصراع بين الخير بين الخير وعناصر الخير وبين الشر وعناصر الشر صراع دائم ومستمر ولم يزل صراعا داميا ومريرا خلف وراءه ضحايا كما خلف الخراب والدمار ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين فقديما حكم العقل وقديما حكم الشرع وحديثا يحكم العقل ولا يوجد للشرع قوة التنفيذ ففي زمن قديم كان في العالم كانت في العالم قوتان تصطرعان وتتنازعان السيادة إحداهما في الشرق وأخرى في الغرب وقد تمثل ذلك الصراع بين الفرس والروم ثم بين المسلمين والفرس من جهة وبين المسلمين والروم من جهة أخرى ثم بدا الصراع بين الاسلام والصليبيه في عهد صلاح الدين واخيرا بين الدوله العثمانيه والقوه العسكريه الاوروبيه تحت قياده شارل مارتيل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا وحين وضعت الحرب أوزارها نك بدا الصراع بثوبه الجديد يعني العلمانية وهو فصل الدين عن الدولة وبنظامه الجديد يعني الديمقراطية وبين هذا وذاك نظام عالمي جديد لا يبقي ولا يذر والمسلمون اليوم لا يسعهم ان يفكوا هذه الاغلال بين عشيه وضحاها ثم لا عاصم اليوم الا من رحم الله انها نك سنه المداوله وتلك الايام نداولها بين الناس ذلك بان الله نك لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم xatta yughayyiru ma bi bi bi ma sa am diggante mbaax ak bon bu fekkoon ni bëre bu ñuy combine rekk la du dëgg bu doon bëre bu ñuy combine la mën na am du diis waaye bëre bi nag amul kumbin mbon dafa bëgg a daan baax te baaxit fas yéene du daanu bëri nag bu ñu demee ba ñay seetaan sonn kon ñay bëre bëre ba ñoom kenn waxalewu mu melni li ci chance nag moy bu yàlla xiddi won c'est très important bu yàlla xiddi won rek ko lawla difa'u llahi nnas lol lay firi lol lay firi yàlla neena buma fi xiddi won rek la fa fi fil ard waaye nag ma maa gën ñoña ci yéen عنده مخدي الله ذو فضل على العالمين mu mel ni nag ñaara fi ne xel ak sharia déglu leen ko bu baax de xel ak sharia xel bu doon jaay lamb waaye sharia nag qualité ba qualité ba ak envergure ba ah ak dimension ba mu toll wax qui est un état bu xel di atte parce que c'est l'opium du peuple ndax li ma wax ngeen ko sharia marchandise hors classe là moo tax ba lislaam di àtte lépp lewoon na ko waaye bi lislaam àtteegul lu dul xelu nit mooy àtte léegi sharia léegi fraude la ndax dañ ko jàppee opium du peuple moo tax nag ñaar rekk a ci mën a am ben ñu interdire ko nga jaay ko ci mbedd mi ba nga fay nag taxe bi الضرائب الجمركية يعني والله فوق في تاكسي بي te mooy li la douane bi wax ni la foog nga fay ko waaye malheureusement lan mooy taxe bi te bu jëkk ba léegi ñu bari génne nañu fay taxe bi mais ba léegi marchandise bi génnagul waa Badr fay nañu taxe ba ak seen deret waa Uhud fay nañu tax ba ak seen deret waa Xunayn fay nañ ko seen deret ak ya ca topp ba sang sangu suuf ña fa ñëw ñëw gannaawam ak la xew ca xorobu ridd ci Seydina Abubakar ba ñëw ci xarbul qadisiya ci jamono sayidna umar ak la xew yep ba ñëw ba ci al khulafa al arbaa jeex la ñëw seen gannaaw ñëw booba ba legi ñaata ton ak ñaata ñaata wala ñaata mètre cube de sang mom la jullit versé hein pour dédouaner marchandise bi ñaata ba tay demal Algérie demal Tunisie hein? demal Iran demal Irak demal fu nekk al alaalamul bas ba Somalie gi demal Bosnie Herzégovine faire dem foofa dem un mètre cube de sang la versé pour pour dédouaner Y bi ñàkkul xanaa am na foo xam ne bu fa yeggee dinañ ko dédduwaane jeexagul nag jeexagul dañ koy gëm jeexagul mu mel ni kon nag li tax mu xaw a diis te metti moo di wujjale giñ ci wujjale ci ñaari xeex yooyu penk ak soow moo tax dem nañ ba ku ca boruloon bokk sax bokk na ca ndax ku bokkul woon ci borom xel waaye buñ la nee penku nga bokk te waa penkoy xeex rek nga jóg taamoo xel ña bokk ci sow donte sharia yi leen waaye comme neewuñu astafirullah ña bokk ca penku donte amuñu sharia diine dundalu leen wan nañ leen ni leen penku la rek ñoom ñëpp soobu nañ ca biir xare ba ña bokk soowu itam donte ñëpp amuñu xel waaye comme nee nañu leen soowu la rek ñépp dugg nañ ca biir xare ba loolu sonnal nit ñi nañ fi bàyyi penku bàyyi fi soow te dellu ca ka moom penku moom soowu walillahi nag al mashriq wal maghrib te kooka kat mooy rabbul mashriqayni wa rabbul maghribayni ah du dëgg kon ñu dellu ca moom penku bañ ñu fee téye soowu bañ ñu fee téye waaw mu mel ni nag waaw la rasulallahi waxoon محمد صلى الله عليه وسلم نيكو خامني ووجو وخلم دول فيخ اك نون بو بخيم دول جيخ رك لا وير خيخ با دوسيبي عدو بعيد يتهجمني او صديق حميم ملكته امري waaye nga delluwaat ca moom rek in lam takun gadbanan alayya fala ubali koo xam ni nag wujj wu xolam dul féex ak noon bu pexem dul jeex moo la wër sa nof lay jeex na du dëgg te kat walan tarda anka alyahudu wala nasara xatta tattabia millatahum yàlla ko wax yonent bi مجاهد ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا motax revanche ci kaw revanche te jamono yonent bi ba léegi l'islam noppaluwul revanche ci kaw revanche ba mu commencé furs ba jóge furs mook ruum ba jóge ca ruum ñu falsifier ñëwaat ci beneen façon danaa ko expliquer ci liy ñëwaat falsifier ko ci beneen façon mu dellu seeti yeneen revanche amati ba ci la guerre des croisades ba keroog bi général bay dugg tiim bàmmeelu salahaddin ca euh, Dimashq te naan ko laqad udna ya salahaddin ni ko démb yow woon waaye tey nag dellu nañ revanche bangok ah nga xool ba ci tey lampiir ottoman ak fa ñu jaar ak coalition bi européen yi def pour détruire ko bala ca xew Poitiers ak Charles Martel pour wax la revanche ci kaw revanche mënuloo ci dara mu mel ni nag kon yëf yi dafa soppiku léegi soppiku gi mooy lan moo di bu fekkee ni tëral nañu ngànnaay yit am na yeneen ngànnaay yu jóg te mooy li ñoo tuddee laïcité ak li ñoo tuddee démocratie waaw parce lu tax ñu di ko tudd te l'islam te l'islam luy démocratie rek l'islam mën a ëpp la mu tëral ci démocratie dara tëralu ko moo gën a valable mais lu tax ñu indiwaat baat bi ndeysaan mu mujj rek di kum kumba am ndey ak kumba amul ndey déglu leen ko bu baax de waaw àdduna beeg seen politique ak seen démocratie ak seen laïcité ñooy kumba amul ndey ñooy kumba am ndey kon lislaam nag ndeysaan ndeysaan faf rekk nag di kumba amul ndey balaa ndékki ñëpp ndékki ba noppi hmm? waaw kañ nag ba kañ ba kañ bu dee fuy lislaam yi lislaam yeewoo rekk tëddaat ndax xaar boroom ndékki ba dama leen di laaj bu dee fu lislaam rekk yeewoo ñu ni ko boroom ndékki yeewoogul mu tëddaat bakkañ kañ geddal ndékki li geddal ndékki li ku woor bëccëg it bu ngoonee yàlla jox la loo ndogoo waaye day fekk nga gëm ko te it nag lu fa jiwu wa jeexul jógu fa waaye njaw des na xamin de njaw des na xamin dalika bi ann allaha lam yakun mugayiran nicmatan anamaha ala qawm xata yugayiru ma bi anfusihim ku ne jubb bala fal boo ko watee ñu fàtte la wat nag gaaw na waaye sëqaat gaawul wala problème bi yépp loolu la jullit yi xëy nañu ñu nax leen ba ñu wat seen dëbbu wat ba gaaw na waaye sëqat bi du gaaw kooku nag na ngeen ci tenir compte rawate nag muy jamono sedd xanaa wuti laafa waaw waxin la rekk waxin la rek déglu leen li ci biir rek waaw mu mel ni nag kon deuxième point bi loolu mooy introduction bi deuxième point bi moo di lislaamu démb ak lislaamu tey lu tax mu wute c'est très important ngeen déglu ko xam nga kaana naasu ummatan waahidatan فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه الله يهدي من يشاء لك الى صراط مستقيم بس رك امي كان الناس امة واحدة متبوكي فيري تدكي وكونو لك دان بفطرة أمي كسر كان الناس أمة واحدة لن مي فطرة xam nga fitra ñu ngi koy fiire ci ñun ci tuwaab instinct du dëgg ñu man mii daan na ko wax sama moroom daan na ko wax mais alfitra firiwul instinct alfitra mu ngi firi le code de la logique ah, ah mooy yëg logique doomu aadama mooy code bi waye bañ ko nangotul nak indi xel maanaam fitra moy li ngay yek mu jóge ca yàlla dara hajamaluko moy waral bu jotee conscience taxaw bo bëggee def mu la bi la borom bi d'accord bi la d'accordul motax sharia ba mu ñëwé yàgg na li ci téere yi daa mujj ñëw rek waaye conscience moo jiitu di sharia moo tax ñu ne conscience c'est un conseil c'est un conseil avant l'acte un juge après l'acte <laughs> waaw conscience bu dara xewagul mu nekk conseil ah watul bii baax na bii di wax ba keroog ngay def boo defee ba nopp mu laa tey nag nekkatuma juge la moo bari na ba bari ku daw dem nit fekk conscience ko mayul jàmm waaw mu xel dugg si rek la njaxas njaxas am moo tax kaana naasu ummatan waxida ba fitra amee waaye nag ba ñu demee ba nga xam ne nag léegi xel dugg na njaxas njaxas am nag moo tax yàlla il fallait fa baata allahu nabiyin mubashirin wa mundirin wa anzala maahum alkitaba bilxaq liyaxkuma bayna annaasi fi ma ixtalafu fii ndax li ñu doon werante ñoom ñiy dunde fitra ak ñiy dunde xel mooy kii ni ko mala dàq ndékki kii ni ko déedéet dàqooma ndékki fañ koy xuloo yàlla yónni yonent yi mubashirina pour wan borom fitra yi ni leen ndekki lu neex amul solo ndekki luy rees rekk a baax même bu saful suukar c'est très important nit lekk na lu neex ba noppi wàcc ko moo tax mubashir yi na kon wax leen ni leen ndekki lu saf suukar neex amul solo ndekki lu rees rekk a baax وأنزل معهم الكتاب nag mu nekk seen repère nekk seen lettre de référence bil xaq moo tax li yàlla tëral gën a jëkk nit leex nit tëralal boppam moo tax li nit tëralal boppam lu mu ci jël rek allergie la waaye yàlla nag nee na ba ma leen yónnee ba ñu ñëwit wax ko it am na ñu të بغيا بينهم لان مبيو تتخنا نبني بينا لين تسين يون مبيو واي نيانانغونك دلو تي فطرة خمني دق مولين دي جارين فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه دي احنا لا تخ échec bi l'islam am ci jamono échec laa wax nag waxuma defet شتان ما بين الفشل والهزيمة الله ليسان échec bi mu am ci jamono waxuma defet ngeen ko jàng bu baax du benn échec ci stratégie la dellu defet bi dellu ci bëre bi lislaam rof na ay galgal mais galgal ba baaxul mënu yenu mënu la yenu ki muy bëreel moo tax am na échec ci stratégie waxin la waaye amagul defet ndax kenn daanagu ko <laughs> لا اله الا الله ها ها وخلا وخلا بو جوليت جي دانو ملني الاسلام دانو <laughs> اي الاسلام دانو غول نك واو مو ملني ايشيك بي نك كون كي استراتيجي na ko gën a indi mooy ci jamono ñi ruut toolu lislaam yépp jiwu ya ñu téye ci seen loxo du sax ci toolu lislaam jar na déglu de ñi jël lislaam toolam yépp ci jamono jiwu ya ñu téye ci seen loxo du sax ci tollu l'islam wala bu fa saxee danañ ko détruire te ña jiw yi ñu téye ci seen loxo moy je cheikh al alxaaj malik waxon ñaari del yi ad darahim wa darajat الدراهم والدرجات شيخ الحاج مالك منان وخني إن أئمة ال... إن أئمة الدين إن أئمة الدين ينسون حق الإسلام إذا أقامهم الحظ بين الدالين الدراهم والدرجات نيرو tollu الاسلام كون تسن لوخ لودول جيو درجه jiwu daraja ak jiwu dërëm newu ca ما دي لين يغل الاسلام دو جوخه درجه سي تريز امبورطون الاسلام دو جوخه درجه الاسلام دو جوخه ان البذور في غير تربتها لا تثمر وان الاسماك في غير بحارها وانهارها لا تعيش ni ko fu mu dul meññe déglul de mën na faa sax waaye du meññ gis bu ne jël nit nit jël jiwu ci àll boo xam ne sunu atmosphère fii ak ya ca des du ko mën a supporter waaye man mën na génne xob ba def garab waaye meññent du génn waaw moo tax nag ba ñu demee ba lislaam toolam yiñ ko ruujal yépp jiwu darajaat bu gërëm lañu ko jiwe bu saxee it laata muy meññ yàlla yebal na ëlleeru gumba xam nga ëlleeru gumba gisul xàmmeewul gàncax xàmmewul tànk lu taxaw ci kanamam dina la bay ñax yépp daanu na ba léegi ñax gu wow fas na lakkaale gu tooy lu ci gis kilifa diine boo daan naw ndax barke ña ñëw gannaawam barke ba nekkatu fa বাইরে এখানে am na wala amul ñu néew ca génn mag moo daan fekk mu toog mu wóor la ni alcharq wal garb mën na leen a boole téye ci loxoom ndax ci pas-pasam ci yàlla barke ba mu ko defal ku ñëw mu régler sa problème tey ña ña mu fa bàyyi barke ba nekkatu fa bayre baa fa des moo tax ku tey génn ci ñoom nit ñay yuuxoo ko tàcc comme ñoom Moustapha Sy dootul cër ba boo lambee poche rek daj fa téere bu day ni ñay baa nga daj fa ak fas baa nga daj fa ab galan ba saafara bu ñuy raayoo soog a génn moo tax bari na ku ngeen di sow na mu mel nangam fekk xamul dara galan yaa rekk galan yak safare ma len ko wax ma ci xam dara ma nga gisee ñu xale bi dafa rew dama xam lu bari daw nak ñoo xam na ngay defa ni dañuy waaj da ngay defani wat na ceel xërem gu jëk ga tel jahiliyatul ula mo delu ci hmm? ah wa moo tay lo ci gis comme legir ñax gu wow nak faf na gu tooy يتنازعون ويتباغضون ويقتل بعضهم بعضا يحبوا لك انا غوتوي جام اماتول موي كيب كوي ووتيل دين ليغي مانوتلو نلاو ndax fas yene keneen kay wote diine ci sa kanam dootul taxaw dootul taxaw moo tax li ñu tuddee guerre froide ñu defee ne xeyna ci diggante américain yeeg union soviétique la rek mais ni mu amé ci biir sëriñ ci lëg moo gën a garaaw guerre froide mo gëna graw il faut dire la vérité moo